asalaamaaleykum mbokk yi àndal chaîne chaîne YouTube Daaray Al Xuraan di leen di nuyu waaye tamit di leen ziar waaye tamit di leen baal xaq di leen baal di ñaan yàlla boole ñu bal waaye tamit jéggal ñu suñu bàkkaar nangu ñu suñuy jëf mbokk yi comme ni nga ko baaxoo def si chaîne bi toujours ci leçon yi bu ko defee ñu ngi woon ci li nga xamante ne mooy sida bu ko defee ñu continuer leçon yi waaye laataa loolu ma lay bu dee abonné ko nga abonné chaîne YouTube Daaray Al Xuraan activé temps notification bi mooy tax bi vidéo boo xamante ni dugal nañ ko nga mën si jot teg ci bouton j'aime bi mooy tax ñu xam ni liggéey bi ñu ngi koy rafetlu kon mbokk comme ni nga baaxoo def ci toujours dañuy ñëw ci tableau bi ñu xool lu ñu indi tey ci leçon bi comme nañu gisee si bi boobu ñu gis mooy lan xam ngeen jàngoon nañu si de si biir baat lay nekk day ñëw dëgëral baat bi kon ñu gis so li si topp ba mais ba bi dafa am sidda kon lu ñuy wax so ab ba ñu koy sidda ab ba mu nekk lan sob ba gis nga sob ba noonu la ñuy sidda sob ba bi si topp di ba ak ta nga boole lu mu jox bat ta gis nga sidda gi moo tax ba ta bi si topp ñu am fenn xa nga boole ku mu jox la xassa xasa du sob ñu am fenn xa ajja nga boole ko mu jox xajja gis nga xajja ñoo bin bis digg bi ñu am fenn ñetti baat ya xu ussu waxoon nañu su bi commencé ñu si dëgg loolu ussu nekk lan ya xussu gis nga si dëgg day ya xussu bis topp nekk lan ya wa du nga boole mu nekk yawaddu yawaddu bi stop ñaam feneen ya shi zu mu nekk lan yashizu yashizu bi stop ñaam feneen ya xu xu la xu xu ussu nga boole mu nekk yaqussu yaqussu ñu bind bi suuf ñaam feneen xa ibbi waxoon nga ma su ibbi la ñuy wax ibbi ab mu nekk xabib gis nga si dëgg ñu koy dëgëralee xabib ba am noonu sidda dañuy wax xabib xabib xabib la ñuy ba am noonu sidda mais ba amee sidda dañ naan xabib bi stop di ra itti ab nga boole mu jox la ratib ratib bi nekk lan sha ijji a mu nekk shajja شجع stop di raa xi raa ixi ab mu nekk lan raxib raxib raxib kon ñu bàyyi si xel baax baax sidda loolu lay jëriñ maanaam day ñëw dëgëral baat bi sidda day ñëw dëgëral baat bi loolu ñu bàyyi si xel baax toujours kon leçon bi tey loolu la woon di leen jaajëfal baax a baax ci taaxir liggéey ak bàyyi xel gi di leen di leen dig daje ba beneen leçon incha allah rabbi jërë ngeen jëf